jërë ngeen jëf mbokk yi wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëggee fi ne daan bëggee di leen wax ne tey ñoo ngi seen émission bi nga xamante ni spécial Modou Lo la ñuy def xale bi nga xamante ni moo dëkk Parcelles Assainies unité 10 borom unité 10 roi des arènes ki nga xamante ni nii ñëpp nee na matul mbër ñi naan du mbër ñi naan taay bi dafa tuuti ñi naan est-ce que mën a dégg wiiw ci làmb yàlla di dogal mu dem ba ci biir dégg li nga xamante ni mooy roi des arènes mais mu am foo nga xamante ni jaar na fa moom moom mi nga xamante mooy Modou Lo palmarès am def na 24 combats 3 vic 3 défaites benn sans verdict ak 20 victoires ñi nga xamante ni ñoo ko daan muy Balla Gaye daan na ko ñaari yoon Bombardier daan ko benn yoon mu am sans verdict ñi mu daan nag bari na su ma ko day lim defe naa ne du ma fi jógee daan na ki nga xamante ni mooy Paul Maurice daan ki nga xamante ni mooy Les 2 daan ki nga xamante ni mooy Papa Sow daan Issa Pouy daan Baye Mandione ah daan Papa booy Kayre daan na fi ay ndaanaan yoo xamante ni tey su ma leen lim fi lay fanaan ah ki nga xamante ni mooy Balla Diouf Modou Lo def palmarès boo xamante ni nii extraordinaire dugg ci kalaaf bi nga xamante ni mooy Papa Gaston def ci lu doy waar jël finaal bi ak léegi am ñoo xamante ni bi muy doog dugg si ñoo ngi naan est ce mën na mbër ndax boo ko xoolaan taay bi dafa tuuti lool tuuti na état bi beneen affaire la waaye yàlla dogal mu am loo xamante ni dafa nekk ci moom kooku di Modou loo am gëm-gëm boo xamante ni lépp lu muy dugg lu ne di ci dugg def ci jom fulaak fayda ba li nga xamante ni moo ko ci fekk tey mooy roi des arènes bi fekk ko ci. boo boobaak léegi nag am na loo xamante ni am na ñu ci jot a waxtaanal suñu mbokku suñu mbokku présentateurs yi ku ci mel ni Lamine bu Lutte TV jot nañ ko seeti mu am lu ci wax ñu seeti ki nga xamante ni mooy père suñu papa moom tamit am na loo xamante ni jot na ko ci def jàngat. defe naa ni suñu paree war nañoo mën a dem seeti loolu ñu dellu siwaat ki ñu njëkkee dañuy njëkkee ci ki nga xamante ni mooy papa Ousmane Diouf kooku suñu papa yàgg nañ ko fekk ci li muy yëngu doonoon ay auditeur ci moom di ko woo foofu ci XFM mu ko doon émi mu dafa animé émission boo xamante ni émission bu bu bu bu jéggi woon dayoo la ñu nekkoon ay supporters yenn ci ay mbër yàlla di dogal nag ba léegi aadama su ma juumul nañ dem seeti kooku nga xamante ni mooy père Ousmane mu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni mooy palmarès su Modou Lo waaw ah, salaamaaleykum euh, jërëjëf Ousseyn maa ngi lay nuyu di la bu baax di nuyu si site internet bi euh, di am mbégte lool lool bi nga xam ne ni euh, boolee nga ma ci yaakaar ci sama xam-xam bu ñàkk solo boo xam ne am naa ko jëmale ko ci làmb rawatina ci xale boobu nga xam ne muy Modou Lo muy xale boo xam ne bi ma koy xam ay deux mille trois ay deux mille trois parce que boobu jamono mi ngi bëri mbapat euh, fële ci parcelle ci Birame jaay euh, man ba ma ko xoolee ci jamono jooju xam ngeen mbër li ñu yaakaar ne dañu yaakaar ne mbër day day day dëb rek rëy déedéet Modou Lo du mbër bërekat la bërekat dafa am mbër am bokkul gis nga Yékini mii koo ko xamoon démb ba muy débuté ci mbappat yi Yékini tollu loon ni dafa sewoon ruuj te boobu la gënoon dangereux Modou Lo ba ma ko xoolee mbappat nga xool façon bi muy daane ma gisaat ko fi aussi ci soixante douze de face ci laa ne xale bii de xawma kan moo ko yor waaye bis dina ñëw dina mës a làmb ci te it mu nekkoon xale mu nekk xale boo xam ne li ma gën a neex ci Modou Lo dafa dafa dafa deful li xale yi di def maanaam forcé forcé doole déedéet doole dangay liggéey mu fekk si la doole jooju bu ñëwee dafay des mais doole ji nga xam ne yooyu yaa ko forcé bu ñëwee bu ñëwee daf lay ëpp doole ba wàññiwaat la loolu moom dalul Modou Lo bokk ci xale yi dàq bëre ci senegal laa lay wax Modou Lo tant que jëloo ginnaawam gi teg ko ci suuf daanu googu ndax dafa gëm boppam xam na ne li muy def mën na ko te amul kenn koo xam ne Modou Lo mënulaa daan amul amul xale la boo xam ne mérité na roi des arènes bi mérité na ko lool te man yàgg naa ko wax sax ne euh, dina ko mës jël tey nag attention Modou Lo euh, nekk na mbër moo xam ne ñu ba dañoo xamul ne dafa jaar équipe nationale dafa jëf dafa def gréco-romaine def lutte libre xam nga ñaari xeeti bëri yooyu boo ko amee ba noppi boole ceeg bëri bi mbappat mbappat ba oos leneen lu la say entraîneur dolli rek eh, day fekk rek yow déjà yow am na lu ne ci yow Modou Lo daal li mën a wax ci gàttal xëy na audio bi lay bañ mu gudd lool waaye bokk na ci xale yi nga xam ne histoire làmb danañ ko bind ndax def na fi loo xam ne ay ponkal yu ko ëpp fuuf ñi ngi fi defuñu ko ndax fit waa ngi fi ngoor gaa ngi fi jom jaa ngi fi mën a bëre baa ngi fi te wolu boppam a ngi fi loolu daal laa ne woon rek naa ko ci sànni euh, di la remercier baax di remercier bu baax a baax say internet di la. ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal Père Ousmane gis nañ jàngat bi mu def dégg ngeen ni mu ko waxee bari na fi mbër yoo xamante ne ñoo ko ëpp fuuf dayoo. tolluwaay bi tollu noonu mais li fi def ñëw na mbër mag yu toll ni moom def ko fi ndax nee na boo xoolee depuis 2003 la ko xool ne kii dina dégg wiiw ci làmb boobu gis na ko gis na bëre yi gis na xale bi Pastef bi mu ciy def mu xam ne kii kat su amee jàppale nee xaw ma fan la nekk waaye kii bu amee jàppale dina dem ci làmb nu nga ko gisee woon noonu la demee kii di Modou Lo mbokk yi dafa am loo xamante ni da koo gëm ndax dafa nekkoon ci nekk fa ak ñoo xamante ni ñoo mag ki nga xamante ni mooy Zos ki nga xamante ni mooy Xaadim Gajaga nekk fa ki nga xamante ni mooy Gaga Mbossé Baye Pël mais teewul mu am gëm-gëm boo xamante ni képp ku mu taseel ku ne bu ne la Modou Lo nga am say nelaw day jeex ndax dem nañ ba naan day ñëw sa biir kër fekk fa seen waa kër di complice ak moom donte bataille la doon def mais da ciy mujj obligé saa bu amee combat da ciy gagné ki nga xamante ni mooy Modou mu dem ba ci diggum ñu koy woowee Xaragne loo ndaanaan la champion la képp ku taseeg moom. sa xel du dal ki nga xamante ni mooy Modou Lo ndaanaan la buñ fa jógee mbokk yi dañuy dem seet ki nga xamante ni mooy lamin boobu Lutte TV lamin maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit Adama dañ dem déglu ji Lamine te ñëw. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax Ousin maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa wasaare làmb yëpp ak mbokk internet yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare. waaw fas yéene waxtaan tuuti ci Modou Lo bi nga xamante ne tey moom ngeen def. tam spécial Modou jaar-jaaram li nga xamante ne jot nañ ko ci xam ba ni mu déggee daale xalaat bi ma ci njëkk a joxe rek mooy lépp loo xamante ne tey Modou am na ko ci làmb rek fulla moo ko ko may fayda moo ko ko may am jom moo ko ko may waaye tamit man métier bi surtout man métier bi parce que kuy wax làmb rek wala ku yàgg seetaan làmb wala képp koo xamante ne xam nga làmb xam nga ni Modou Lo tey bokk na ci les trois meilleurs lutteurs tey ji boo doon wax mbër yi dàq bëre ci làmb ji bu fekkoon da ngay def classement bi cinq premières du ci génn parce que mën na bëre trop trop trop trop trop li tax nag man may wax mbër mën naa bëre li ci ëpp dama lay seetaan contact parce que am na mbër yoo xamante naan sax mbër foog nga seetaan ko ba pare pour xam ba mën naa bëre mais man contact laa ko seetaan bari na fi ay mbër yoo xamante ne tey ñoo ngi fi seetaan naa leen contact. bokk na ci mbër yi nga xamante ne seetaan naa ko contact ci laa ko nangul ak mën a bëreem waaye nag fulla ji tamit fayda ji bëgg li muy def. waaw fi mu jaar nag tey ba nekk roi des arènes man li ma waxoon rek loolu laay répété waat mooy man métier bi di entraîner nag di entraîner moom en personne nee ma damay entraîner ba entraîner samedi kon kuy entraîner six jours sur sept yaakaar naa ne tey jii lu nekk mérito nga ko waaye man bëre. am fit tamit Modou Lo man wax la benn affaire Ouzin mu gudd mu gàtt man gëm naa ne Modou su su su su defoon un mètre quatre mbër du ko daan ci làmb ji un mètre quatre su ko defoon mbër du ko daan ci làmb ji ndax lépp loo xamante ne tey mbër soxla na ko rek moo ngi ci Modou Lo baa ngi ci moom xeex baa ngi ci moom bëre baa ngi ci moom mystique bi tamit moo ngi ci moom tey ji bari na ay mbër yoo xamante ba pare mental bi baax tey bari na ay mbër yoo xamante ne bi ñu tase ak moom avant làmb ji rek def na ci seen xel dut ñu ni Modou day sekki Modou dafa am mystique mu ñëw laalal la benn affaire ñu ni Modou day dem ci ay këru jàmbur day yéeg ci këru jàmbur yow miy bëreek moom sooy bëree soo soo soo amee ak moom combat rek sa xel du dal bari na ci ay mbër yoo xamante ni avant muy muy bëri ak ñoom daf leen a daan parce que dañ ko doon jiiñ ne day ñëw ci seen kër léegi mbër bi nga xamante ne tey day bëri moom su fekkul amul amul mental bu baax wala moom ay staff bu dëgg rek loolu noonu tey mën na ko perturber ba mu ñàkk combat am waaye nag roi des arènes bi moom lu mu mérité la bokk na ci mbër yi ko gën a mérité parce que dafa daan ay moromam yépp ba mu jeex Modou Lo bi muy bi muy première défaite am quinzième combat am la enregistré première défaite am digganteem ak Balla Gaye numéro 2 bi mu duggee ci làmb ba léegi ñaari mbër ñoo ko daan muy Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Bombardier mu am 20 victoire am 3 defet ak benn sans verdict yaakaar naa ne tey jii daal ak lu mën a xew daal gàcce ngalaama rek lañ koy wax moom Modou Xaar. ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax kooku di Lamine dégg ngeen ni mu ko waxee su amoon 1 mètre 90 kenn du ko daan ci làmb ndax def na lépp nga xamante ni nii. bu amee làmb la mu def da koy def moom Modou Lo ndax nee na bi muy am quinzième combat am la enregistré premier défaite am ndax boo xoolee daan na ci ñi ñu bari ñi nga xamante ni bokk na ak ñoom génération wala bokk ñi mu bërël bëre naa ak ñoom daan leen Modou Lo dafa nekk mbër ma nga xamante ni nii dafa neex a faral ndax boo ñëwee làmb lépp lu làmb laaj mu koy di Modou da koy def ba mu mat sëkk dina bàkku bàkku bu neex ah dina dina dina dina baagante ci ci biir stade bi dina def lépp li nga xamante ni daal làmb da koy laaj bu abi tëjee ba yooyu nag moom sa jàmm jeex Modou Lo ndaanaan la Modou Lo kenn du naataable mën a bëreem ndax dafa nekk xale boo xamante ni nii daa bëgg làmb dégg nga ni mu ko waxee nee na semaine bi da ci entraîné 6 jours maanaam benn fan la ciy noppalu kooku ku bëggul sport wala ku nekku athlète du def loolu bañ ne ko sax ba ñenn ñi ñoo ngi naan Modou Lo du mais athlète la dafa bëgg yaramam ndax da koy sàmm ndax boo xoolee yenn mbër yi tollu ñu mbër ñi mais saa bu ñu amee combat wala boog saa bu ñu duggee am deux combats trois combats dañuy yokk masse bi naan loo xamante ni bokku ci ñoom après day dem ba day leen andi yenn difficulté gis nañ ko ci yenn mbër yu bari mais moom bi mu tàmbalee ba léegi état de forme bi mu yor moom lay continuer di maintenir di entraîner di progresser ba kum taseel dañ naan moo ko ëpp doole mais saa bu sumee ba nga des si digg géew bi dañ naan est que kii Modou Lo la ba ñenn ñi sax naan Modou dafay sekki. amaana liggéeyam moo ko may loolu waaye mu juge foofu ñu dawal moom Issa Pouye daan ko jóge fa am Baye Mandione ba ki nga xamante ni nii mooy Balla Gaye mu daan ko mu jóge fa jël Lac de Guiers ñu mag si ci mu jóge fa ba Gris maanaam te nekk ci làmb ñëpp Modou Lo na ak ñoom jóge fa am xale bi nga xamante ni nii mooy Ama Baldé làmb ji moom la ñëpp di coow muy combat royal bi nga xamante ni nii moom la ñuy wax xale bi nga xamante ni mooy xale Parcelles bi di Modou du bëre moom fa yéeneen ci nag préparé ko préparation bu doy waar ñu doon def benn taxaw seetlu jàngat ci moom palmarès bi nga xam te wax lépp waaye li nga xamante nii matal nañ ko mu nekk suñu xel ak suñu xalaat lañuy àndi àndi ñenn ñi waxtaan ak ñoom Modou daal ndaanaan la champion la. ñu leen gërëm yéen ñëpp di leen sant. Adama tey loolu la àndi loon ci spécial Modou xanaa beneen yoon tamit ñu xoolaat beneen daanaan boo xamante ni ci làmb la bokk andi leen ko ñoo ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf